salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen dinu ñaanal dem mbégte ak kontaan ci ànd biir ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu làmmiñ seen taaxirlu war a suñu farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk ci setti leen koo xam ne que njëriñ leen ci seentu di ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal indeeti ci ki nga xam ne que d'accord ngeen ne jàmbaar la ñu d'accord ne jàmbaar la moom ci boppam mu d'accord ne jàmbaar la te tamit lépp mu koy delloo ci kàttanu yàlla ndax lan bu dee invité naa ko indi ragal kii bu ko kenn ragal ñeme naa ko kon ñeme leen ko te xam ne njëriñ euh, mi ngi ci moom te yàlla na wéy bu baax a baax a baax. kooko di kan ki nga xam ne que kenn du mer ci moom te yàlla bu kenn mas a mer ci moom euh, ki bëggul wuyoo sax sëriñ ak àll yu Aliou Dieye mi naan mi ne teewoon pël mii ne dëkk bi mi ne rab yeeg jinne yi Aliou Dieye yaa ngi ci Tektal TV sa tele émission Tektal sa émission looy nuyoo àdduna war nga këpp bi seetaan. bismillahi subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim huwa allaahu allazii laa ilaaha illaa huwa al-aalimu al-ghaybi wash-shahaada huwa ar-rahmaanu ar-rahiim wallaahu allazii laa ilaaha illaa huwa al-maliku al-qudduus salaamu al-mu'minu al-muhayminu al-aziizu al-jabbaaru al-mutakabbir subhaana allaahi ammaa yushrikuun huwa allaahu al-haalihu al-baari'u al-musawwiru lahu al-asmaa'u al-husnaa yusabbihu lahu maa fi as-samaawaati wal-ardi wa huwa al-aziizu al-hakiim wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu inna allaha baaligu amri xad jaala allahu li kulli cheyin xadra xasbuna allahu wa nimal wakil nimal mawla wa nimal nasir sëñ Cheikh dañuy hmm. njëkk sant borom bi tabaraka wa taala ci indi bi hmm. mu indiwaat fii euh, ñu defoon fi ay émission yu bare yàlla def fi si tawféex hmm. ñu ñëwaat fii. ci ñu bari jëriñu ci Tektal TV. Euh, sunu télé ñu ñëpp. bi nga xamante ni comme ni nga ko waxee rek njëriñ si lay dox njëriñ si lay wax. boole ko euh, ñu xam leen si dëgg gis leen si dëgg aussi te ñaan yàlla lépp nekk ci yokkute. ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam. sëñ Cheikh ginnaaw bi ñu sant yàlla dañuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaxa nasiril xaq bi xaq. walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim suñu jógee ci julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dañuy sant waajur yi mm-hmm. suñu waajur bu góor yàlla na ko yàlla xaar ci aljana mm-hmm. suñu waajur bu jigéen di fi des yàlla na yàlla yokk fanam te may ko wér ci barke rasulillahi alayhi salaatu wasalaam tey nag dafa am loo xamante ni mënul ñàkk ñu def ko mm-hmm. mooy daf ci am ñu ñuy woo di ñu wax ni émission bi du leen raw euh, daf ci am sax ñuy dem benn ma Euh, bu ñu la seetaanee Tektal Tektal ak daanaka dañ koy téléchargé. jamono ji nekk ñu koy seetaan. Mm-hmm. ñooñu mu am si ñoo xamante ni dama leen faj ba ñu wér. bon mm-hmm. mën naa ci cité ku ñu wax Alassane Sall. Mm-hmm. mën naa ci cité ku ñu wax euh, Cheikh Diop. waaw kooku sa turandoo italien la nekk ñëw na sax Touba dëkk. xam naa ko bu baax. Euh, xam na la xam nga ko waaw. Euh, sëñ Cheikh Mbaye Diop nuyu Mbaye Diop très mm-hmm. bien moom la waaw xam nga ko. daf ci am euh, ñeneen ku nga xamante ni mu ngi fële di États-Unis Cheybata mm-hmm. Cheybata mm-hmm. waaw daf ci am koo nga xamante ni aussi suñu yaay ju baax soxna Ulay Seck ak ñeneen ak ñeneen du jeex muy li wax rek mu ngi noonu kon ñu nga xamante ni la du ñàkk c'est la première fois ñu cité fi ay nit parce que mm. ñoom seen bopp lu ñu ñu ñëpp dem leen faj nag waaw ak ñeneen ñu dul jeex du xaj donc à travers tegtal mm. yàlla yàlla defal ñu tawféex barki nent bi alayhi salaatu wasalaam mm. sama mag bopp nag tey moom laay njëkk a sant xam naa bu ñu demee ci fin bi daaf sant sama yeneen mag yi mm. mu di wele moom tamit yàlla dafa def ñu dugg ci mbir mi euh, moom tamit amoon yu bëree yu ma ko gàllankooroon yàlla xam na. Ah, kon galaay fi nekk nii eh, jébbalu na. Ah? waaw galaay galaay ñoom jébbalu dama leen bàyyi wele rek. <laughs> dama leen bàyyi wele. Hmm. waaw loolu daal lañ duggee ci kër gi yàlla def na am ñu fa fekkoon moom tamit ñu dindi ko. Hmm. léegi ma bàyyi ak ñeneen ak wele daal wele wele wele yor na lu si des. waaw kon boog mu ngi noonu noonu la defee entrée bi rek di ñaan yàlla ñu tàmbale ko ci bisimilah rahmaani rahim. Hmm. àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp nekk njariñ. ñu ñëpp ñu bokk ci barkeelante bi alayhi salaatu wasalaam. asalaamaaleykum macha allah kooku mooy eh, Aliou Dieye moom mi ngi mi ngi naan ma sëñ sëñ Cheikh ba pare nangul ko roog sëñ Aliou mm-hmm. non non di la wax Cheikh rek mm-hmm. parce que tamit man ma wax sëñ Aliou parce que mm-hmm. yow moom eh, vraiment kontaan nañ ci ndam yi li ma naan ab sëriñ ay résultat am bu ñu ko mënee wàññi rek war na seetaat boppam ñii muy lim ñi mooy ñi nga xam ne que dafa fas ak ñoom ci diggante bi ay kóllëre maanaam eh, faj ban wér am na ñoo xam ne parce que am na ñoo xam jënd ak jaay ngeen seq. am ñoo xam ne dugg ci bi yëpp client bi mu wàcc ngeen séq maanaam ñoo xam ne kóllëre ngeen séq kóllëre nag koo xam ne que mooy luy wéy la te yàlla sàmm ko moo tax kooku mën ngaa toog ci kaw tudd ko mën naa toog ci kaw tudd la loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax yàlla yokk ndam yi li mooy njëriñal Tektal TV ab sëriñ bu defee lu nit ñi kontaane ci moom kam faj lu mu kontaan kontaan ñun ñoo koy kontaan ñoo koy gën a kontaan sëriñ ba lu kontaan kontaan ñun ñoo koy gën a kontaan njax luy wan ne lii ñu def du kaf du fo du ree rek ñun mbégte boobu leen def parce que tamit émission bu am lu mat fukki at chaque jour niveau bi di gën a yéeg wax dëgg yàlla kun waxul lii dëgg la war ngaa xam ne lii dëgg la léeg-léeg damay am lu ma metti bu ma nit di laaj waa sa gars yi li ne wax dëgg la daf may metti man nekk yu ma ciy caaxaan bu doon ay caaxaan la am naa yeneen yoon yu ma mën a jaar pour am laneen Tektal TV bu doon te ne fitna rek lan soxla wala ay vie wala noonu kon am na ci yoo xam ne que exclusivité yu nit ñiy coow ban koy jot ëpp na 6 mois te nii ba nii nit du ko dégg ñun doxuñ cooy ku indi njëriñ rek lan soxla te yàlla tax moo tax wuute gën wuute ñeneen ñi euh, ak barke bi loolu dañ koy sàmm koo xam ku la gis wóolu la ku gis say mbir doyloo ko non doo dugg ci lu ne. kon Aliou Dieye dama koy ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ko wér ci njëriñ yi ak résultat yi parce que vraiment kontaan nañ bu baax a baax ci résultat yi yàlla yàlla gën a barke non dinaa ñëwaat ci yeneen sax am na yeneen yoo xam ne que dañ ci ñëw parce que da wax mm. yi jaar ci yow man moom damaa dem ba bërgal la léegi audio yi day ñëw nit di ma taggal Aliou Dieye ma xool ko taayew déglu nga xoolaat ma parce que lan la euh, lu baax moom boo gisee lu ca dooleeku rek lu gën lay doon gën ngay day xaw dëppoo ngën gi mi def moo tax xam naa daal kii ñeme naa ko wóolu naa ko yàlla na résultat yokk parce que sama xarit moom mooy résultat ku koy def da nga fi bari tànk dañuy dëkkee nit ñi duñ doyal ceew duñ doyal ceew mhm. doo doyal ci doo doyal ci ñun kon yàlla yàlla barkeel mais dañ bëgg nga ñëwaatal mu ci mhm. comme sa domaine la carrément mhm. rab ak jinne dañuy jéem ñëwal ci jinne ci boppam mooy kan melokaanam ku nuy soog a dab li mën a yàq lu mën a defar jinne bu la bëggee ngëneel la bu la bañee loraange la wala bu mën na laa bëgg lor la xeet googu yëpp nga ñëwul ci jinne après nga ñëwul ci différence moom ak rab waaw jërëjëf sëñ Cheikh euh, tudd nga lu am solo tudd nga lu wër àdduna wërngal këpp ndax li tax mooy jinne yi dañu ëpp Sénégal ñu ngi tudd 17 ñu ngi fiy tudd 17 millions de personnes 18 millions de personnes mm -hmm. en fonction des statistiques mais boo xoolee ci ab kër fii ñu toog nii. 17 mm-hmm. millions de jinne mën na fi dugg. mën fi ñu toog nii rek 17 millions de jinne mën na ko accueillir. mën na ko donc li nga ci gis mooy lan mooy jinne yi dañu ëpp ëpp bu doy waar. et puis ñu nekk ñoo xamante ni tey jii euh, bàyyiwul nit ñi dañ leen topp. xam nga bi nga ñëwee kër ga maa ngi fa defoon benn typologie bu nga xamante ni dama waxoon euh, façon yi nga xamante ni dañ koy duggee nit. ci ñun clients yi jot ak suñu gëstu li ñuy topp. xam nga dama la waxoon ni la am na ci bu nga xamante ni daf lay solu toog ci yow. loolu la gis ni mooy njariñam am na bu nga xam ni daf lay solu ba pare di génn mais moom solu lay def. mais day solu ba pare di génn di dem di ñëw. waaw am na xamante ni daf lay topp foo dugg mu dugg fa mais du la solu. am na ci bu nga xamante ni nag day ñëw ci yow ci affaire gént lay ñëwee maanaam yow si yooyu nga koy mën a gisee mais du la solu du du la solu sa biir yaram donc déjà da nga ci gis kat boo si gisee kat yooyu jinne du topp ku amul njëriñ parce que bis boo daanelee nit boo xam ne dafa yor jinne pour nga dindi ko boo koy boo koy laaj dina lay jox ay information mm. ci ngay xamee yu bare boole koog yow sa gëstu li ngay bi ngay def mm. mais da ngay xool jinne ku mu dugg rek dalay wax ni mm. euh, kii ko am wërsëg la kii dafa am avenir kii dafa am lii kii dafa am laa c'est-à-dire que moom ci loolu lay jouer pour mën a dugg ci yow euh, man la man la accaparer objectif am yëpp mooy mu accompagner accaparer la euh, soreloo la société bi. Mm. bu ko defee moom mu jël nag objectif am mu yaakaar ne loolu mooy tax mu mën laa jariñoo au maximum possible. Mm. loolu mooy nekk objectif am loolu moo tax nag mu daanu la faalewu ko. Mm-hmm. mu feebar loola faalewu ko c'est pas son problème. Mm-hmm. ba ci mu dof loola wala mu rey la mu mu rey la. parce que daaneel naa ay nit ba tàyyi jinne ji daf may wax ni ma kii balaa ma am li ma neex rek dafa dee wala mu dof. Mm-hmm. bu ñu foofu nag. ba ma gis ni jinne seytaane dëgg la te loo ko parce que Cheikh naan seen Cheikh naa la wax ni jinne bu tuuboo tuub bu dëgg rek du dugaat boo ko génnee du dugaat hmm. mais bu fekkee jinne seytaane nga dajal mu ne la xam loolu lu wér ni la man ci njabootu Iblis laa bokk te boo ma génnee tamit du ma damay dama koy topp rek damay dugaat daje naag yooyu hmm. dugaat génnee ma dugaat ah non damaa njëkk duma duma bi mooy lakk alxuraan lañ lay lakkee li gars yi di yore ay produits di lay sànni ñun alxuraan dañuy teg sa loxo hmm. alxuraan bis bu ñu la jàngalee ba nga manifesté wu si mm. suñu kanam ñun la yow la kan nga ni man la diw bu boobaa am nga problème dinañ la teg lu tàng lakk la lakk yu tàng boo dee bu dee ba egg si benn niveau bi nag tey jii euh, boo ko waxee génneel même bu nekkee génn shayatin la bu nangul tuub sax dina nangoo génn mm. mais bu génnee dina ko toppaat su amul sax dina dugaat bu fekkee génn shayatin la parce que tuub bi du dara dara si moom mm. mais ki nga tuubal moom du dara moom moom moom du dugaat bu ñu eggee foofu nag euh, man bu ma la génnee nga dugaat ma génnee nga dugaat dama lay rey waaw dama koy rey Mhm. kooku moom. te mais kon rey rey jënd dafa dagan bu ñu eggee fenn fi day dagan la ci wax lu leer nañ. Mhm. yow li nga rey ci jënd na bëri na. mën na million de jënd. du ma ko takk bëri na xam nga ci laay waxee te am na yoo xam boo ko waxee dañuy wax mënu nekk. Mhm. fekk euh, su ma ko waxee xam naa ni boo ko yóbbuwoon TikTok moom defe naa ñëpp moom la ñuy waxtaanee. mais dama leen di tegale rey leen. ñoom waaw dama leen di tegale rey leen. ci ñaata minute nga rey jënd yi. Euh, du yàgg loolu nekkul lu yàgg loolu loolu jaare bu jàllee rek ñu ñu ñu kii Mm. waaw bu ma jàngee aaya ba jàllale jaaro bi dañuy dee. waaw lii ma takk nii. Mm. su ma jàngee aaya bi jàllale ko si fi ma koy jàllale dañuy dee. fi nga koy jàllale fan la. fi ma koy jàllale nag moom xam naa ni du ma ko mën a wax nii. waaw mais daal dina jaar fenn ci seen yaram fu nga xamante ni. Mm. dañuy sedd ko yi nit que day tëdd après day jóg. jinne loolu amu ci ñoom amuñu organisation boobu mën nañ man nañ toog nag. Mm. comme par exemple di ko kii ñoom c'est-à-dire amul fu ñu suulee amul suuleeg yooyu amu ci. Mm. parce que jinne boo xoolee euh, xalaxal insaan min salsaalin mm. kal faxaar wa xalaxal jànn min naari min naari rahman c'est-à-dire safara ju nga xamante ni amul amul tàkk-tàkk moom la leen yàlla bindee. moo tax ñu mën a nekk bëre ci sa yaram lu mat 500 nekk sa yaram te du leen déranger parce que maanaam kii bi moo tax euh, fluidité boobu ñu am noonu. moo tax ñu mën a nekk sa yaram sans pour ñu am problème te ñu bëri cest di dire amuñ nekkul matière bu tax comme nit mm-hmm. et ci loolu mooy tax amu fa amu fa fu di suul yu mel noonu mais am nañ famille mais jinne yi moom dinañ jooy seen ah. gis na ah, loolu moo tax nag mu bëgg la wax benn wax gis nga fii ma nekk nii mm. domaine bi kuñ la ci wax day dóor bàyyi ko muy dóor mm. fii ak déwén dootul dóor ma la wax loolu ah dama rab ak jinn daal ku ci dugg di dóor ma fekkee sama kër première émission ma samp tableau def ci sama numéro. ñu fa tableau ba léegi nekk fa. Ah. ma samp feneen tableau ñu ñu damm ko dindi ko. ma mm. indiwaat ko demaat sampaat ko foofu ñu damm ko indi ko. Mm. ku bëgg rek dafa loolu. man xam naa xam ah. naa ñi koy damm. jinne yi la wala nit yi. non du du ba kor kor kii boobu côté boobu sax du nekk jinne yi mais ñuy liggéey ak ay jinne la. ñuy liggéey ak jinne waaw ñuy liggéey ko samp dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dem ah, wu xam nga dama la ñuy liggéey ak ay jinne la ñooñu day am organisation émission bi pes passé wax naa mais jinne hmm. liggéey ak jinne yi ñooy organiser jinne yi tu vois te duñ bëgg ku nga xamante ni jóg na ba ñu xam nga avant ñu damu tableau dañ lay sondé Mm-hmm. dinañ la sondé ndax mën nañ la éliminer jële la fii nga jóge fa mais bu ñu xoolee mu dëgër xool mu dëgër mm-hmm. te man wax dëgg dëgg yàlla dama tolluwul fii fuñ may songee mm-hmm. may nekk foofu di non non man man dama du lijjanti la lay lijjanti loolu après la yow yaa koy yaa koy xool xam nga koy toll fii di wàccee jinne ya nekk Amérique te doo envoyé garab doo envoyé dara tiabi kooku ke bu neexee borom bi tabaaraka wa defe naa yàgg nañ ne si envoyé ak ay ay audio man envoyé na leen si du jeex du xaaj ma envoyé te ñooñu gisuma Espagne Italie hmm. kooku boo nekkee ci ginnaawam di ko tukkuti da ngaa xaw a dëgër fit tuuti mais hmm. yow euh, leer naa ni. Hmm. Euh, boo gisee nit kuy ruux gaynde doo ko wax da ngaa dëgër fit. da ngaa da ngaa xamul. da ngaa xamul waaw loolu la sëñ bi waxoon dañu woon ragal yàlla ñeme ñeme yàlla amul ñàkk xam yàlla moo am. umpale yàlla yàlla moo am mais li ma la bëgg wax si yu gàtt mooy que ni ñooñu tey jii euh, loolu moo tax ma la ku ci ku ciy dóor rek bàyyi ko fii ba déwén du ko fekk. parce que parce que jinne tey boo rayee kenn ci ñoom Hmm. dañuy xabtalu dañuy venger wu parce que jinne ñett ci beneen typologie ñett lay duggee ci nit hmm. c'est-à-dire que daf ko neex c'est par le désir par le désir daf ko neex hmm. beneen bi vengeance la c'est-à-dire da nga rey kenn ci seen xeet beneen bi pacte wala pacte wala alliance buñ si waaw buñ si ak léegi li mu bëgg xam tey par exemple tey président Macky bu doon man dama ko soof bu ko neexee mu këréel ma léegi ci doole bu ko yàlla jox bu doon bu ko neexee ma tekki léegi bay mayee kër yi almadeeg comme comprendre hmm. jinne tamit li ma bëgg xam hmm. boo ko soofee hmm. ci la lay gën a mën a mbugal wala boo ko neexee ci la lay gën a mën a mbugal da ngay dégg ñu ñoo naan diw dafa dajeeg jinne ju baax mu may ko alal diw dafa dajeeg jinne ju mu alak ko diw dafa jinne ja ko may alal ju bari mais dana woon bul def nangam def na ko nag moo tax yàqulewaat na xeet boobu moo tax mu bëgg xam jinne yi may alal moom yow Cheikh nga ak ñoom dara wala bokkul. très bien Cheikh xam nga bëri émission nee naa la woon am na benn soxna bu nekk kër gi bu ma génnee ci moom 19 émission 19 kii 19 euh, jinne. Mhm. Euh, barki démb laa ko yeewi 50 jinne lañ tolloo te dama ko mujj wax ni ko mu dellu. ba mhm. dem seen kër ba ci kanam. ñu mhm. préparer ko mu ñëw moom dañ may dégg ci émission bi. gis nga ci biir jinne yooyu day répondre li ngay wax ne dañ wax ne ma lan moo tax bëggoo liggéey ak ñun. te gars yi dañuy liggéey ak ñun bu ma ko daaneelee dama koy laaj laaj bi si ngay si ngay kiyee yu bare quoi si la yu bëri di génnee la moo tax bëggoo liggéey ak ñun la moo tax bëggoo signé ay pacte ak ñun pourtant si diw lañ nekkoon diw moom la ñu rëccee dañu daan jox deret diw dañu daan jox deret loolu moo ñu daan may doole parce que tuub bi ñu doon tuub si moom ak génn ñu daan génn si ñoom parce que mën naa la wax benn benn passage balaa ma dem jëne mën a dugg comme ne nga bu ma lay lim naa lay lim ci lu baax li waaw lu baax <laughs> sama waa ji du ma ko lim nag moom moom kii moom lu ma ko lim wala guddi waaw kon naa bàyyi tey. xam naa saa yi non saa yi moo juumoon sama numéro bi. <laughs> léegi léegi jox naa ko Ousseynou Ly jox Ousseynou Ly yëpp benn waay bu nekk Allemagne ah. Ousseynou Ly Ousseynou Ly yow laa sacrifié <laughs> ma la ne sa càmmoñ jinne mën a ah. mën dugg ci moom dugg ci keneen dugg ci keneen dugg ci keneen mm-hmm. daana leen ñoom ñëpp nekk ci ñoom xam nga li tax day nekk ci kii ah. day nekk ci kii dix cinq dix heures dix mu nekk ci kële bu ñu nekkee sax si dëkk yu wute. Hmm. dix heures quinze mu nekk ci kële dix heures vingt mu nekk ci kële mën na leen dugaloo. mais ñooñu hmm. ñooñu daf daf dañ may wax ni ma pourtant diw euh, fajkat la mais ñoom hmm. ñun dañuy jox deret day def ay pacte ak pacte ak ñun mais yow la moo tax doo signé. ay pacte ak ñun la moo tax doo ñu téye. nga ne ko leen soxloo ma ah. leen. benn. soxloo ma leen benn. Mhm. xam nga ku leen di téye mooy ku leen ku leen soxla pour armement ku leen soxla pour kii parce que dafa am lu ko manqué. Mhm. man ci faj yi. Mhm. ci cadre jinne soxla ma jinne parce que au moins ci lu ma ci manqué. ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala au ci ma ci manqué li ma ci soxla yëpp maa ngi koy am su ma bëggee yëkkati dinaa leen yëkkati duñ ci man dara. te aw jinne bu may defal kii naan ay bii bu mag la bu ndaw amul fii. ci man amu fa. dama leen wax ni leen euh, maanaam liggéey ak jinne wóorul. parce que yow yoral dix personnes rek laa wax di ay nit comme yow yoral sa kër. Hmm. est-ce que dinañ ñàkk a contrôler dañu waxante dëgg waxantuma la ñu nga xamante ni nii la def ñu nga xamante nii la def mënoo leen contrôler da rey sa bopp rey nit ñi hmm. moo day am ñu ñëw si yow indaale wuñ sax jinne hmm. say jinne solu leen balaa ñoo dem si lu lu may wax nag kaamil la man du mu nekk fii di wax ay waxu caaxaan parce que da ngaa ay jinne di liggéey ak ñoom amoo benn contrôle si ñoom yow sax nit ñi ñoo xamul rek mais balaa Euh, waaw jox ko ndigal te gars yi duñ ko xam hmm. kooku nag léegi ay nit dañ fay ñëw indi benn malade certes am na ñoo xamante ni dañuy indi malade fekk nag ñoom am nañ jinne am na ku ma ku ku ku ko defoon sama kii ba moo la wax vidéo bi bëgg naa ko passé euh, dafa dafa ñëw di jël si rakam fekk moom dafa am jinne hmm. ci moom foofu laa ko daaneele foofu laa ko génnee mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw indi indaale dara hmm. parce que waaw waaw waaw boobu li tax ma li tax ma préciser ko mooy moom dafa ma bàyyoon ak rakam ma génnee jinne bi nekk si rakk ji kooku nag euh, moom laa la wax dama mujjee rey jinne ji parce que dama ko génnee mu dem seen kër mu ñëwaat dugaat ma hmm. génnewaat ko deux fois mu dugaat ma ne ko hmm. nag aaya bi rek laa lay wax attalaahu marataani yàlla nee na fase ñaar la hmm. troisième bu amee rek ah attention baax de zawj moo am foofu te ku am jom doo def baax de zawj man jinne ma génne la nga dugaat ma génne la ko dugaat boo ñëwaatee dama lay rey te nga wax mu leer nga ni ma dofloo ko rek war a dee moom may tàggoog moom mm. sinon man du ma moom mm. xam nga foofu dinaa fa def parenthèse avant may ñëwaat ci mag ji parenthèse bi ma fay def mooy mm-hmm. da wax sànq question bu ñu eggalul mooy jinne ndax nañ ko rey xam nga li tax dama lay wax benn exemple gis nga euh, sow mii bu jàppoon sëñ Wàdd ci loxo bi ni du ko bàyyi ñu jàpp fii ñun teqar ci teqar ci ba sonn teqar waaw mais au cas où doonul woon deñ ah. loxo bi du woon deñ ñu teqar ci teqar ci ba sonn mm-hmm. soow jàpp rek mm-hmm. ñu dindi dindi ba sonn soo mënu deñ mm-hmm. ñu jàpp ñoom ñaar yëpp yóbbu police ni nañ dem foofu ñu leen di ko ñu egg ah. police tamit lijjanti ba sonn loxo bi mënul deñ ah. ñu xool xool condition mënul deñ ñaari kon ñaari solution mooy taxaw foofu bu fekkee mënul dañ. Mm-hmm. soit ñu dagg loxo bi. dagg loxo bu fekkee mënul dañ lag laa wax li may wax day leer bu fekkee mënul dañ. Mm-hmm. te dama la jox exemple pour wane ni daraay ko mën a dagan. Mm-hmm. bu fekkee mënul dañ soit ñu dagg loxo bi su fekkente ni tamit mu dañ doon jéem dagg loxo bi sax te loxo dagg loxo bi mënul nekk. te soo moo jàpp mais soo dañ koy rey. ba ba ba baal ma si wax ji bu fekkee ñu <laughs> si. ci nit ak nit rek laa la wax. waaw waxuma ne kii nag moom du nit mais mënul dem ci moromu moromu jinneem mu toog fa nga jox ko benn chance waar ko wax ko bu baax a baax a baax li nekk ci risque waaw mu mu d'accord ci loolu nga génne ko mais mu ñëwaat wax la la sama tuug gi kat du woon dëgg moo tax mu ñëwaat nga génnewaat ko deux fois moo xaaral loolu troisième fois bi sax bi bi nga génnee deuxième fois bi bu mu ñëwaatee mu expliqué lu la ni ah, de da ngay sonal sa bopp rek mais mhm. ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir Euh, tegtal mooy daw ak euh, sëñ Aliou Dieye mhm. dafa 77 263 88 48 du ma jum daal 77 263 88 48 sëñ Aliou Dieye mhm. nee na bu ma béy sax sëñ defal Aliou Dieye rek ah. waaw moom mu gënal Aliou rek. waaw ah, Aliou Dieye ah mhm. ci Tivaouane Peulh 77 263 88 48 88 ñaari 8 la 48 171 74 77 76 171 74 77 171 la 1 ak 7 ak 1 74 7 ak 4 77 ñaari 7 yu Dieye euh, ki nga xam ne que moom jinne yi ak rab yi day tàng jër day mel ne signature contrat moo nekk ci Tektal TV man nag bég naa ci moom bu baax a baax ni muy liggéeyee ñeneen ñu bari bég ci moom yàlla yàlla yokku ndam ndax amul benn sëriñ am maqaama ma waxal la témoignage bu dul dëgg maanaam nag kuy def résultat moom may teg bët di ko dégg dama ciy ñeme te tamit am na ñoo xam ne bu ñu defee résultat mel na dañ ko tàndatu wala résultat bi daal bu ñu fabriqué la client ba woo ma ne ma waa diw di defal na ma lii nangam dama rek ne teg sëñ bi bu ma waate amul ku la woo nangam ma xam ne kii moom résultat bi xaw naa takk suuf soit da koo tàndatu wala gëmewu ko wala pexe gi ci moo tax lu naturel rek mooy loolu nit yi jóge fu ne ci yow dama ciy sëñ Aliou Dieng. mais man dama gis que ni li ma la wax sànq tamit tontoo ma ci ba léegi mooy. par exemple jinne bu la bëggee. da lay jariñ wala da lay lor wala bu la bañee ci la la gën a lor. waaw comme par exemple président Macky Sall bu ma bëggee moom bu ko neexee ma tekki léegi. jinne tamit mu bëgg la loraange la wala avantage. waaw xam nga li tax xam nga li tax su ma tegaatee sunu émission yi. Mhm. di ko dégluwaat xam nga loo question boo jël la yow tam la. Mhm. loolu moo tax question yi di dagg. question boo jël ak thème la. waaw ñuy dal ah. jël ak thème la. Hmm. gis nga li nga wax nii dama koy préciser la sëriñ si nga xamante ne ay sëriñu xottu mboole lañ. Hmm. c'est-à-dire que boo waxee bu ma waxee loolu tooñu ma leen. mais dafa am lu nga xamante ni ci ji boo ci mënul dara demal nga defi leneen. demal nga defi leneen moo gën parce que da ngay nit ñi rek. jinne bu lay indil njariñ te du jinne julit amul. Hmm. ça n'existe pas. jinne amul jinne bu tuubul nekk jullit amul benn njariñ njëriñ bu mu lay amal aw aw am da donne par la main droite récupère par la main gauche. ji na ji mën na jombiloo nit wala mënul nekk. Euh, du doon intention xanaa mu bañ ko tey. lool mën na ko mën mën na mën mën na nekk. sa à dire hmm. que jinne mën nga fekk ci forme bu nga xamante ni moom boo ko tiimee nga daw fekk moom teyu ko. jinne jullit loolu mën na ko dal mais jinne jullit moom jaamu ji yàlla lay def ak di jàppale ji jullit yi ci jinne yi saay-saay yi ah.

du ndam. Mm. am naa ci 94 am naa ci 313. Mm. yooyu ay caaxaan la. ay caaxaan la loolu loolu du faj. Mm. ma ni waaw man mu nga xamante ne lay wax ni la 500 dama koy tegaloo ma ra ma rayandoo ko yow loolu ban njëriñ la am <laughs> yow boo ma wax 313 yoo yor yooyu yónni yónni leen def maa la wax ni la nga tàggoog say jinde yooyu 313 yi. 3 94 yooyu ngay wax noonu bu ma ci 94 man tey ji bu ma doon tàgg sama bopp am naa dama lay tuddal ay milliards ay milliards yi jënd milliards yi mais amuloo benn njariñ xam la faj mu wér nga faj mu wér loolu lañ la xa am na bi kenn sax mos na dégg ni balaa nga mën a faj jinne il faut euh, il faut que nga mën a wan nit ki jinne ban rapport la am amul rapport mm. c'est-à-dire que fii ñu nekk nii dimension bi nit ñi dañ indi seen i jàngoro mu takkaloo ak mbiru jinne nga mm. jàppale leen ngir yàlla nga faj leen ñu wér mm. loolu mooy ndam li mais amul leneen mais ku loo bëgg a wax ni tey jii nii la jinne ji mu ngi nii euh, daf maa contre moo tax mu duguma loolu mën naa nekk mais jinne ji bon la du nekk jinne ju baax jinne ji euh, te nekk loolu tamit nekkul ku nekk la koy def hmm. maanaam daf mu topp la hmm. mu la loolu mën na nekk mais ak des conditions am na nooy mel jinne day jéem jéem suba ba ngoon mënu ci yow dara hmm. jinne dina absente wala dina dina li nga wax sànq nit bi nga xam ne que jubluwul ci jommal la waaw ah. sàggan ci melokaanam ba nit simple rek waaw ah. gis ko tiit ba ah. problème waaw mais loolu mooy erreur lu waaw xam nga yow boo waxee dama am ay jinne damay seet damay def nii moom dafa mel ni jinne du def erreur nga bëgg a wax. ok dafa mel ni jinne du ndaxee nga bëgg a wax. mais ñoo dàq defi erreur. Mm. ku baax fii nag laa lay waxee lu nga xam du deñ parce que ñoom lu ñu jàppee jinne loolu du jinne. du jinne jinne moo dàq defi erreur moo dàq defi tojange moo la dàq nax di la comprendre A di la wax Z. ok indi la information boo xamante ni moo tax. Euh, bu ah, fekkee kon sëriñ si taxaw naan diwee daanaka léeg-léeg wax. ñoo xamante ni dinaa la wax seen maladie tey xam nga seen ah. maladie lan la. Ah. dafa am jinne bu nga xamante ni mooy bi ma lay wax. Euh, daf lay daf lay daf lay daf lay feeñoo mais ci gént la lay feeñoo. damay déglu baax li ma la wax. Hmm. question bi bàyyi ko Cheikh mu daw ma développé tuuti. gis nga dafa am ñoo xamante ni àndandoo jinne lañ am mais àndandoo jinne yi ni ñuy procédé bokkul daf ci am boo xamante ni da lay indil ay information information bu mu la indi nag le plus souvent dans la journée day am bu ko defee nag da teg sa bopp ab waliyu maa la ko wax nit ànd naag jabaram mu ñëw mu ni ma ah man de damaa jaaxle parce que soxna si daal ni muy gént di wax yëpp lu si bari day am mais man daal bëgg na maa jommal léegi laag la léegi ma ne ko woo ko mu ñëw mu woo ko mu ñëw ñu toog ba fekk na moom si boppam defal naa ko li ma koy def ba si biir ma ne ko amoo jinne def naa k ñaari nit kenn xam nga ko mm. ma mu taxaw taxaw wax mu ne ma si la deuxième fois nit di ma ko wax ma ne ko du ma ci reculer amoo jinne bi ma expliqué affaire soxna si rek ma ne ko oo ko mu ñëw ma oo ko mu ñëw ñu toog saal bi di waxtaan comme kii rek comme li mu ko waxee rek mu ñëw dóor ay meesam yu jot xest bu baax def ay affaire am solo ay kii am ñëw toog ma ne ko euh, diggante am lu lay wax bu baax parce que li may wax man duma ci dellu ginnaaw fii laa si ma ne ko diggante del di am lu lay wax mm. ni la carrément li mooy am li mooy am tey nga dem dans la journée nga gis ko loolu taxul nga def sa bopp wala yu wala nga teg sa bopp foo agul mm-hmm. da nga xamul li la li nekk ci yow mm-hmm. wala yu boo ko bëggee natt lenn rek la xoolal sa bopp ci kaw ba suuf nga natt sa bopp ci wàllu yu koo xam day xesal koo xam ne day dangal koo xam ni dafay teg mees mu dem ba ci suuf mm-hmm. koo xam ne ay wey yow qu'est-ce loo yor lu loo yor <laughs> loo yor lu nekk ci wàllu yu parce que ab naar ma sama ko wax ci benn station ma ne ko kii gisuma ci wàllu yu moom wàllu yu jeex na tàkk dama dugg ci station bi muy tagg femme bi mu ngi xeesal bu xonk yi naan ma kii wala yi la kii lii li ma ne ko gisuma ci moom wala yi maa ngi doog a dugg de mais man boo ma boolee ci wax ji rek du ma ko bàyyi boo ma ci ah. boolewul rek mën na wala ma ne la est-ce naa wax waaw dama dama mais ma ne ko gisuma ci kii wala yu hmm. femme bi nag mer mais kii tamit loolu laa ko wax hmm. heureusement biñu demee ba ci biir lépp ma teggi ko dindi ko hmm. ci temps gàtt mais nangu sax xam nga yor sa fowukaay di ko naxee sa jëkkër bi nangu mu réer kooku sa problème la <laughs> tu mais damay bëgg a wax nii la gis nga cas yooyu mm. dafa am jinne mm. bu ko defee nag mooy am tey mooy am mu lay kii mais bis bi ngay rëmbeelu di daanu ah. doo ko tey parce que nekkul chaque jour mu gis dëgg mm-hmm. dina la yóbbu foo nga xamante dina la wan loo xam sax yow comprendre ko mm-hmm. maanaam wan na la dëgg sax mais comprendre ko parce que xamoo jëloo sa temps pour xam lan mooy gént mm-hmm. jëlal sa temps pour xam lan mooy gént mu wan la lu nga xamante ni yow comprendre bu ko defee nga wax ko dans l' espace public mu nekk ay erreur voilà des gens yu nga xamante ni jine dalee na solo mm. ñu wax soo bëggoon naan li mooy am lële mooy am te sóoraale wuñ ni jine ji dina def erreur jine ji dina juum jine ji dina ko tay dina ko tay induire leen en erreur jax voilà kon ñu dem sooraanaat vidéo waaw waaw bii moom nu waaw bii ab xale la bu ñu ma indil. waaw xale bi nag wax dëgg yàlla jaar na fu sëriñ bu nekk Sénégal. Mm-hmm. waaw kàngam yi fi nekk yëpp jaar na foofu. Mm-hmm. pour ne pas citer un nom. jaar na fu bari daal waaw jaar na mën naa waaw waaw ci waxin. jaar na fu bari. Mm-hmm. mais daal kàngam yi ma dégg fii moom. jaar na ci ñoom. xale bi nag bi ñu ma ko indilee dañ ma tàggu ni ma ndax na ñëw man leen lu ngeen si njot ñu ne ma daal fu mu jaar nee nañ dafa am lu ko solo léeg laag léeg ma ne bu fekkee loolu ngeen si njot moom na ñëw bu ñëwee ñu wax ci lu bi mu ñëwee ñu gis xale bi xale bi daal day jonkoon di def nii nii lay def rek <laughs> nii rek lay def ak di ak di yuuxu yuuxu bu nga xamante ni euh, du yuuxu genre yuuxu nit ko hmm. fi mu nekk ñëwee ci matin bi daal ba ci ngoon gi xale bi noonu lay def kenn du ko téye nag. Hmm. te encore yére yi da koy sidi hmm. kenn du ko téye nag. ok euh, bi mu ñëwee moo waxtaan ak yaay ji ak aussi ki ñu ko envoyé ñu waxtaan ñu xamal ma daal ni ma fi ñu ko yóbbu suur nañ ko ay suur yu doy mais daal. daanu bi mu doon daanu moom certes wàññeeku na. Mm-hmm. mais xale bi moom ba léegi mu ngi nii. li muy def lay def buy nelaw daal nii lay def nii lay def bu bët set. Mm-hmm. gis nga nii ma def nii. nii lay def bu mm-hmm. bët set. noonu lay nelawee boo nee takk làmp day yeewu kenn du ko téye doole yi mu yor mag yoru ko. quatre ans la waaw bi mu ñëwee nag comme ñun tamit ci alxuraan la ñuy yëngatu bi mu ñëwee ci guddi gi ñu wax yaayam mu dugg ci benn néeg maag moom yaay ji téyel ma ko toog ci tànk yi xale bu quatre laa toog ci tànk yi ba pare ba pare kii ko maîtriser ko. Mm. man ma téye ñaari loxo yi te dafa tëddee woon sur le dos sur le dos laa la wax. xale mm. quatre ans. Mm. ma téye loxo bi téye loxo bi di ko defal li ma koy defal parce que bëggu moon mu bougé mais xale bi sëñ Cheikh man daf ma doon manoeuvrer daf ma doon manoeuvrer nii la ma doon def quatre ans la am. ci doole ci waaw ci doole ji. ma ne ko mën naa waat ni kii jinne solo ko rab moo ko solo. rab bi ko solo certainement. fii te rab moom ay dof nga leen jàppee sax développé na si ñëwaat bu gàtt rek waaw fii développé na xeetu développement bu nga xamante ni mm. man xam naa li ma tiim mm. jinne solo ko parce que léegi si sëriñ si xamuñu jinne xamuñu rab xamuñu xamuñu rawaan mm. nee am na sëriñ si ko xamee wut bari na ci bopp waaw pare na ci xam yor communication bu baax bëgguma ngay dugg ci tooxi doon yoo xam ne dañ lay amal sama yaram mooy tàng ah. parce ak li may gis xam nga hmm. première communication bokku lu na bii mais boo boo gis lu nekk aussi tamit la yow da ngay dem waxal sa yaram mooy tàng quoi da gis yoo xamante ni kuy faj yow euh, kii nu ta encore xol te xamoo xame yow xol yan yan lan eh, erreur yi quoi yan a affaire la quoi tu vois hmm. léegi ñu tenir ko si guddi gi euh, ma ko ba mu nelaw ci sama loxo ci li ma ko doon defal hmm. ba mu nelaw ci sama loxo yuuxu nag yuuxu bu nga xamante ni nag ni ma commencé ba ni ma pare day yóbbu. mais bi mu demee ba xam dafa dal. dama lay wax rek jinne da koy xam nga dugg ci xamoo nga bàyyi ko. Hmm. bi mu demee ba dal dafa xool daal di gëm xoolal daal di gëm ba muy trois fois mu daal di mel ni kuy nelaw bi mu commencé ne la ma ni yaa jibul bàyyi ma continuer li may def mu jekk ba si yàgg ma gis yaram bi ngi nii ma ne ko dem na génn na. li nekkoon si moom génn na. jàmm barke Rasulullah. Tektal TV ah? ñu si yemul foofu de ñu toog. ñoom ñi dem continuer daay dem tëddi mu tëddal xale bi xale bi tëdd normal te xale bi nii la doon nelawee hmm. xale bi tëdd normal di nelaw continuer nelawam ma toog baay trois heures du matin continuer ci li may def ma gis ci buntu kër gi góor yi xam nga góor yi góor yi bu génn ci buntu kër gi hmm. ma teg ci bët kooku xam nga amul amul pexe te gisee lu ma woon xale bi dama ne woon yaay ji kii rab moo nekk ci moom te hmm. rab bu ma xam bu musculé moo nekk ci moom te yi ñëpp xam nañ ko mooy dàngin mu génn dem à partir de là yaay ji nekkat na fa samdi la fa ñëw ba samedi jot ba samedi delsi day nelaw xale bi day nelaw ba ba ba ba xaran ba biddanti bay génn ci position position nit lay nelawee yàgg fi tawér jox loxo amul danger maa yow yam mm-hmm. <laughs> ah? waa nga dégg nag lu ah. metti nag dal nañ <laughs> ñu ñaar ko mu marque boobu marque polo Ousseynou lii marque boobu ak tàngal polo ah. Oh, tu vois tu léegi nag yooyu ma la wax yëpp dafa revenir ci xale bi mais lu am solo aussi. loo nga xamante ni da ko war a xam booy faj. li ngay li ngay faj nga xam ko xale bi yaay ji nee na ma bi mu koy affaire bi dugg. Hmm. un an la ko duggee ba quatre ans. ba quatre nelaw bi normal na. Hmm. yëre yi normal na. Hmm. dindetu ko xale bi il n'est plus agressif. Hmm. boo ko téye woon rek matt lay xalaat nga xam ne 4 ans matt lay xalaat wala mbëkk la da mbëkk te yaa ne bu la mbëkkee fa la hmm. ngay dal loolu lay xalaat hmm. donc il n'est plus agressif yaay yi da koy bàyyi ci néeg bi jour yi kii jour yi stop mu toog fa di foofu moom dong deful dara tu vois mais dafa am lu am solo lu mel noonu après cest à dafa am élément yoo xamante ne dafa des c'est xale bi mënu fa wax si 7 jours xale bi mënul def li xale yi di def si 7 jours yi pourquoi euh. ni gis nga fa ko feebar fa mbir mi solo woon. Mm. fa la développement cérébral am yem. ok dama ne xale bi sur le plan physique quatre ans ngay gis. mais normalement sur le plan physiologique sur le plan physiologique da ngay gis ne xale bi un an ba mu nekkoon foofu la toll. foofu la toll léegi nag li si des mooy il faut que ngeen accompagner ko. parce que ngand mi nekkoon ci biir moom dem na. yow xam nga ko man du ma la ci wax dara. jeex na kon ñu dégluwaat audio ah. ak Tektal ko fii. ngeen abonné Tektal ba su ba bi ñu dégluwaat Aliou Dieye fu mu jaar ak gars sama gënt bi démb dañ ma woon ñaari ñaari guro dañ ma woon benn keesi guro kees bi dafa digg bee tam dafa digg ñu woon ma keesi guro bu xonk ak keesi guro bu weex ñetti nit sol yére yu weex gaari seen ñaari pajero ñun dañ bëggoon a ñëw nag xam naa pour takk ma ci gënt bi moom xam naa shayatin bi bu ñëwee bay def seen préparation rek balaa takk bee am man yeew naa balaa takk ba am ci laa yeewu bi ma yeewu rek ma daal wax ange billah mina cheytaani rajim ma ne ko man sama xel ma ne man de fas yéene ma sëy ak yéen dem na ngeen seeti seen mbokki jinne ngeen bàyyi man ma seeti sama mbokk nit ñu ñuul ñi xam na xam nga ñu ngi may dégg ma waxee loolu rek mu daal di dugg sama yaram bi rek traité ma def ma benn ñurugu njarga dox sama kaw yaram bi xaale moo ko ma ne patt jàpp sama morso jàmbur waaw après nag ci laa xëcc téléphone di déglu ruqaya bi ma envoyé di déglu déglu ba yàgg rek euh, ma sentir mu daal di dem benn instant mu ñëwaat fekk maa ngi nelaw ci nelaw la ma yee di ma sonal faalew ma ko ma tëddaat rek may tudd yàlla tudd yàlla di jàng en même temps sa ruqee bi maa ngi koy déglu en même temps man tam maa a def ruqee sama xel di jàng jàng law anzalna haza quran en même temps jàng euh, kii wataba ma tatlu ngi koy jàng kun uhiya maa ko doon jàng sama xel en même temps maa ngi doon jàng tam yaa maxshara jinni wal insi sama xel tombé tam sa ruqee bi mu ngi tëgg sama ñaari nopp yi tamit man tamay jàng loolu sama xel nag gisatuma ko déggatuma ko ba ni ma a onze heures laa yeew alhamdulilah rabbil alamin ma kontaan trop vraiment sëñ Lamine euh, sëñ Aliou Dieye yow yàlla moo lay fay yàlla moo lay fay xam naa ne am na lu yàlla ci yow macha allah te xam naa bu jàppante lépp dina baax man xam naa loolu yàlla may na la man moo ñuy tëdd fii man tamit am yàlla may na man may gis guddi ma tëddee tamit damay xam ci nit ki de loolu tamit yàlla def na loolu ci man. moo ta affaire faj sa bugguma ko man façon faj bu ne jox nañ ma ko ci perta jox nañ ma ci kurus tur ay turi yu bëri bëri ay wirdu di bëgg pour ma def ak ñoom euh, di liggéey te affaire sëriñ mi bëgguma ko man am bu ma gisee nit ki rek damay xam ne dinaa xam ne kii ban genre doomu aadama la ku yiw nga ku baax nga vraiment ku am nga macha allah xam naa si yow tuuti aussi tamit ci wàllu xam-xam yàlla mel na la xam-xam te xale nga sax mais suba incha allah dina gën a yokku booy dem mag dina dina kii dina kii day gën a ñëw loolu gis naa ko ci yow incha allah borom baax nga buñ jàppante bàyyi wuñ dek man gis naa ne ci kàttanu yàlla Eh, bu ma ñaanale rek man dina wër gis allah yal na la yàlla fay ma madam bu baax nil ma soxna si faatu xale yëpp macha allah dina jëf jéey yéen si jaamu incha allah sëñ Aliou tey nii démb maa ngi doon wax bu dinaa la wax démb guddi gi yëpp euh, suma bakken bi da doon génnee ndox genre socc laa def quoi mais muy génnee ay ndox mais wax dëgg yàlla sama yaram bi oyof gi ma oyof billaahi ak bi ma ñëwee si bërëbu liggéeyukaay bi sawarte gi ma àndal li doon diis sama yaram bi yëpp teggeeku na boo xoolee santiirum santiirutuma dara même sama ndigg ginnaaw gi la fa doon takk mu mel ni su ma yeewoo daf may gën a bës pour ma bañ a jóg lal bi santiiratuma ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëñ di lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaar bu baax di la sant di nuyu sa njaboot di nuyu baax mbokki Sénégal yooyu yëpp waaw la ma doon wax de ni nga ma ko waxee woon maa ngi koy continuer di ko def ba léegi yaram wi am na woyof bu baax a baax seulement ñaari bu bu ma am waayewul vocal bi rek daa fekk ni géntuma dara moo tax ma de dama waxoon nii dama xawoon a génn doon yoo euh, seeti sama benn xarit buy waaj a ñëw Sénégal ne ci suba laa la waroon a envoyé vocal bi. pour wax ne yaram bi moom mi ngi am woyof xam naa ni daal ñu ngi sant yàlla te yàlla na ko yàlla yokk ci barke alxuraan yàlla defal koy jullit yëpp yow it ñu leen sant bu baax moom daal ñaari fan ñooñu daal géntuma ci dara lu ma lu ma xam loo xam bi ma yeewoo takk naa ni lii moom gént naa ko moo tax envoyé wu ma vocal bi yaram bi mu am na feex bu mi ngi am woyof bu baax a baax a baax bu ko yàlla yokkee ñu jël incha allahu taala Euh, heure boo moo wax moom xam naa ni loo wax rek daal mu soob yàlla incha allahu taala ñu jàpp ci loolu def lool ñu ngi lay sant jële siyaar di ñaanal yàlla nga yàgg fii ci barke Seydina Mohamed nekkal ci jàmm situation bi ñaari fan yi daal noonu la demee waaye moom li ma daan gën a sonal daal nga xam ni moom jóg sama yaram bi dañ ko daan bés léeg-léeg boobu moo yewoo daanaka damay gis mel ni sama gémmiñ gi dara te ñu nekk loola moom mi ngi dañ bu baax a baax a baax a baax a baax lu ma mos a gént sax daaw ma ko xam ndax jaxasoo dañ ma koy fàtteloo ci saase waaye yàlla baax na fii ne daal ñu ngi sant bu baax yàlla na yokk. salaamaaleykum ci jàmm nga ci jàmm rek ça va tey tamit gént moom mais sama yaram bi moom maa ngi ciy gis tan bu baax maa ngi ciy gis tan par maa ngi ciy gis tan bu baax a baax a baax. waaw yéen toog jàmm. asalaamaaleykum sëñ Aliou ñu ngi leen di nuyu di leen ziar naka njaboot ji mbaa ñu ngi si jàmm naka euh, liggéey bi gëj nañ déggante depuis keroog sëñ Aliou euh, jaaro bi am na doole macha allah macha allah macha allah parce que man daal dafa am lu ma ci lu ma ci dund waaw vraiment parce que bi ma commencé fii ma liggéey nii ay fan laa def rek am koo xam ne dafa jékki-jékki rek bàyyi. léegi ñu tegaat ci ay fan gardien yi boo xam ne foofu defoon na fa dix ans waaw kooku jékki-jékki rek xeex ak benn mbindaan après ñu dàq ko léegi mbindaan boobu tam kooku xam nga moom tam ay fan lañ teg moom tam moom tam noonu ñu dàq ko moom tam léegi am na beneen gardien bu ñu indiwaat léegi kooku ay fan kese kese la fi defar rek moom it jékki rek ne wala moom day bàyyi ba dem. léegi affaire bi man nag jaaxal ma trop mane ne waa mais man affaire bi moom na la demee nii parce que man dama ñëw rek commencé di dem nii xam affaire bi jaaxal ma trop trop trop trop trop quoi ma ne lii daal xam naa ne soo matul lii daal am na am na am na am na lu xew quoi dafa mel ni yàlla moom moo may raxasal gars yi gars yi baaxul yi moom moo may raxasal gars yi baaxul yi ci place bi quoi affaire bi daal noonu laa dundee quoi ma ne daal vraiment parce que vraiment comme ni mu demee nii bëgguma la ma yàqal jaaro bi daal. xam nga vraiment parce que puissance bi mu am macha allah am na doole parce que man maa ngi commencé gis ay mbir yu bëri yoo xam ne vraiment ci jaaxal na ma daal parce que ci ci ci ci ci place bi quoi parce que ñi ni ñi ni ñuy demee nii man xaw ma lu leen di dàq daal man daal loolu jaaxal ma trop trop trop trop quoi xam nga loolu daal moo taxal ma ne daal xar ma vocal la maanaam souligné la ko di la jaajëfal bu baax baax baax di la sant di la gërëm. vraiment di la gën a ñaanal yal na yàlla gën a yokk xewal yi bu baax a baax a baax gën a taxawu njaboot ji gën la may jàmm gën la jox li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal gën a sàmm njaboot ji gën a yokk xewal yi bu baax a baax a baax yàlla boo gis lu la metti yal na la yàlla di gën di aar yàlla gën la bàyyi suñu kanam bu baax a baax a baax di la jaajëfal jërëjëf jëf sëñ Aliou jërëjëf. Ah, sëñ Aliou ñu ngi lay jaay ñu ngi lay jaar yow itam. bu baax a baax di la sant bu baax ndax jot manqué na fépp waaye foofoo ci raw ndax boo dee def yu mel noonu moom ñi lay soxla day bari lool wax dëgg yàlla noonu daal la demee noonu ma la ko waxee daal noonu la def daa ñëw fii daal di ju yor ay bagaasam bi ma nee bëreet nag man daa mel ni aw yat laa yor ci gént gi ni ko ca xaj waaye génn bu gaaw la génn boo xam daal di dem ba gisatuma ko waaw wax dëgg yàlla yaram wi itam par rapport ak na meloon moom mi ngi woyof bu baax mi ngi gën a woyof wax dëgg yàlla fi ni di daal booy jóg wala may def dara duma ci am benn jafe-jafe daanaka par rapport xam nga lii dafa yàgg ci sama yaram pexe mu ne def naa ko ci mu tëj ci tëj ci tëj ci tëj ci tëj ci tëj sonn ci démpan année bi bépp daaw ba ren liggéeyuma ci ku yor njaboot gëj Sénégal sonn ba pare tëj say wërsëg ande ci ay karang karang yoo xam ne mënoo koo expliquer foofu nit ñi te gone yi jàng ak karang ka moom daal waaye nag lépp dama ko wér ci loxob yàlla ak doon ci góorgóorlu man sama bopp li man ci jàng ay ay ay ayatul kursi ak ay lixlaas ak ay fallaqi ak naasi saxal it julli nga xam ne wenn waxtu mooy tardé amut loolu lépp daal mi ngi ci woon waaye nag gërë sant yàlla yow daal loo ci mën a def rek moom moom mu ngi noonu waaw jaaro boobu yi nga doon wax itam maanaam noo mën a fexe moom ba gaaw cee jot parce que man xam naa ni yàgg na ci man yàgg koo xam ni moom bëgg bu fi jógee bëggatuma mu dellu siwaat fi mukk bukk bukk ndax dafa xaw a yàq sa jël sama genn wàllu àdduna jëpp yàq ko waaye yàlla baax na ñu ngi ñaan sunu borom yàlla dolli la jàmm te dolli nu ko saxal nu ci boppam moom yàlla te fajal na si ne nun ñëpp ci daraje alquran jërëjëf mun naa li bu ko toppee yow daal yi moom. waaw tey jii man bu ma naree toog di wax am na yoo xam ne sëñ Cheikh fekk. li ma naan résultat sax boo ko mënee wàññi rek des na. waaw ah, c'est ça. Hmm. ko mënuma ko lim wax dëgg yàlla bare na laa bëgg wax. Hmm. c'est-à-dire. léegi tamit dama lay wax benn affaire. Uh-huh. am na ku nekk Tektal TV. Hmm. Euh, lu ko daloon est-ce que du feebaru ngóor la sax du bay mas no Baye Mass laay wàññi kotam rek noonu. Mm. wenn waay bu nekk Tektal TV docteur Wade sax. Mm. indi na la doomam. Mm-hmm. nee na fayul ñaar dërëm. Mm-hmm. te bég na ci. Mm-hmm. yaay je bég na ci kontaan na. boole na laa ngeneen ñoo xam na que moom ñooñu euh, daanaka diggante Algérie ak Égypte. diggante Iran ak Irak. diggante Milan ak Inter diggante Real ak Barça diggante Marseille ak Paris. foofu ëppoon fitna. mais léegi jàmm ja am na xolootun xeexatun ñi ngi si jàmm kafree te yépp ginnaaw yàlla ak kàttanu yàlla ci foo jaar ak ñoom la ci mbégte maanaam audio yu gudd laa ci jot yoo xam ne que bu ma ko tegoon rek dañuy yéeme li naan bay ci sa wew tànk maanaam ñi nekk Tektal TV sax gis nañ sa njëriñ mu leer li moom amul tirise te man li ma naan résultat mooy sama ndam am na sama xarit yu nekk Amérique sant Diop kontaan nan am na ñu nekk Italie kontaan nan mm-hmm. am na ñu nekk Belgique ba waaw am na joo xam ne kooku ay code la dañ may tere <laughs> ñëpp daal ñi ngi ñi ngi bég bu baax a baax ci résultat yi moo tax euh, man bu may def émission rek uh-huh. nekk en l'aise dëgg la kamay defal émission am naa lu ma teg bët parce que lan la uh-huh. sama soxla mbindeef mënu koo faj dëgg la du benn sëriñ uh-huh. wala ku dul sëriñ koo xam ne ay tappale dina waral ma naan la uh-huh. lii am na te amul moo waral émission bu def fukki at continuer niveau bii gën di yéeg rek euh, loolu dëgg rek a ko mën a indi te dëgg googu lan mën a fas yéene di ci dem jotewuma ak sëriñ si jotewuma ak ñi soxla sëriñ si ndax lan dëgg bi laay yéene comme ci man di doon rek booy def dëgg te man maa ngi gis ci yow dëgg mm. kon yàlla yàlla gën a barke la baax a baax léegi léegi comme yow résultat yi nii mën nga bett bett jékki-jékki rek wool ma kenn ne que résultat bu la marqué nga bett nga jékki ku la neex rek ku la neex rek wool mën na nekk waaw abonné leen xaar ma joxe waat numéro yi euh, numéro Aliou dafa 77 263 88 48 77 263 beneen bi 76 171 74 77 76 171 74 77 Aliou Dieye nekk ci Tivaouane Pël nga dis ko soxla lu ñu mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam téléwul dara te mën na lépp jaajëfal tamit Ousseynou Ly Allemagne Sayer Fall Espagne Mamy d'enfant France ñi niy bëggee bu baax a baax abonné leen Tektal TV de Armane Fall aram da nga jot kenn oh. mu bëgg résultat bu la neex rek waxal Tektal TV nga nekk gërëm nañ kàbb Fall tamit nekk fële ca Suède ak Dubaï gërëm nañ ko jiite mi ngi tam Tamsir Diouf mu ngi Maroc ñi bëgg tegtal di nu seetaan en direct Boussa Saliou Seck Pikine allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Ah, waaw. ne ko mi ngi en direct ci Tektal TV. waaw waaw waaw Cheikh Bata yaa ngi ci yaa ngi en direct fii ci Tektal TV. waa xaaral xaaral ma jox la xaaral ma jox la sëñ seex mu wax ak yow xaaral ma jox la sëñ Cheikh bisimilah. allo sëñ Saybata. wa yaa ngi Tektal TV waaw waaw waaw léegi euh, ñaata ban kii nga nu mën a wax ci lu gàtt rek ci Aliou foo jaar ak moom maa ko bett rek ne ko wool ma kenn. macha allah mm-hmm. Mm-hmm. macha moom daal faju bu dagan lay def te da lay yokk sax sa ngëm yàlla. Mhm. ma moom faju bu dagan la te day yokk sa ngëm yàlla. macha allah yàlla barkeel kontaan nañu bu baax say batam. jërëjëf li mooy njëriñal Tektal TV ah? waaw sëñ Bata baax na jërëjëf. jërëjëf waaw. gis nga de man la bett nii la wool ma bu la neexee wool ma keneen sax. waaw kii. Mhm. man xaw ma ko wax dëgg yàlla tegtal la cinq ans le seetaan li muy seetaan. si la ma mhm. contacté Amérique la nekk. ci Amérique la nekk waaw. Mhm. ci la ma contacté aussi tamit wax yu bëri ci affaire yu bëri. tegtal TV moom diaspora bi moom. yàlla dafa def ñun ñoo ko téye ba mu dëgër. waaw waaw loolu am na nag. waaw boo ko waxee doo kafaara. loolu waaw. loolu am na. loolu dëgg adduna bi moom ñoo ko téye ba mu dëgër. waaw. tegtal TV ku ñeme ne def une heure de temps waaw asalaamaaleykum. keneen. waaw sëñ Cheikh. sëñ Cheikh. waaw baal ma jox la sëñ Cheikh. nekkul mu ngi en direct yaa ngi waaw sëñ Cheikh. sëñ Cheikh Mbaye Diop sëñ Cheikh Mbaye sëñ Cheikh Mbaye Diop waaw. naka yi tey. waaw ñaar ñaari minute du yoonu mën a waxal ci Aliou Dieye jaar ak yow. Mm-hmm. <laughs> kii nañ ko yéegal waaw ay code la moom dafa ragal ci inter waaw waaw baax na waaw sant rek sant rek waaw sëñ Cheikh Mbaye Diop waaw yaa ngi ànd rek TV waaw waaw ndeysaan. moom da koo muy résultat. résultat alhamdulilah. man daal li ma gis ci moom. allo. waaw maa lay dégg waaw. li ma gis ci moom daal wax dëgg yàlla dem naa fépp fépp waaye gisuma ko fenn. alhamdulilah yal na yàlla barke. moom ñetti fan. la ma ndeysaan. yàgg yàgg yàgg maag sama soxna si ma si ma àndaloon mm-hmm. waaw moom wax dëgg jënd dañu ko am résultat yu leer naññ naññ wax dëgg yàlla yëgul dara macha allah sonaloon daal lépp si moom sëñ bi jeexal na ko gannaaw yàlla kon daal nga ñaanal ko ñaanal Tektal TV bu baax ah, ah amin amin amin amin amin est-ce que billahi billahi non yow xam naa. yàlla na yàlla barkeel. Mhm. jeex na te dafa yem ci lim man teg dafa yem ci lim man dafa yem ci domaine dafa yem ci lim man lim man la yem. Mhm. macha allah mais dégg naa ñëw nga Sénégal te seet see góoma dégg naa ñëw nga Sénégal te seet see góoma est-ce que du jinne yi ñoo ma ko wax. Mhm. Mhm. ndomboon barke rasul la. ja macha allah amul jotee kenn xewal dikk loraange nag kontaan nañ sëñ Cheikh ñi ma njaboot gi jërëjëf ah lii de kontaan nañ ci man sëriñ bu fi ñëw ëllëg nag jékki-jékki programme ay appel du ma la wax wooteel de damay jékki-jékki rek Ali ñëwal ma ma ne wooteel nangam ak nangam façon yooyu. lu lu naturel laa bëgg. temps bu gàtt bi dab nañ sax ñu xool temps bu gàtt jël mhm. ba ñu commencé première émission bi ak léegi billaahi bu ñu fi toogoon lii jeex mais mhm. lii li tey jii xoolal mhm. dama la ci wax benn mbir waaw ah. sëñ mi Italie la nekk faj naa ko ba mu wér xam naa ko bët tegoo bi mu ñëwee sama kër benn yoon boobu la bi mu ñibbisee eh, Sénégal bi dem toog na fa tuuti doogu ñëw kër ga kër ga laa koy doogu teg bët te bu ñu duggoon détail nag jël ko un cas particulier étude de cas bu ñu duggee ci ay mbiram euh, lu bëri dina feeñ waaw yow dañuy dem fu ne ci àddina bi dinañ dem fu ne ñëw kii foofu war a jib bu soobee yàlla ci njëriñ waxtu beeru dam nag looy tàggoo bu du tàggatoo kontaan na baax ci man moom waaw li may tàggatoo hmm. euh, du bare bi si jëkk mooy ñun ruqya la ñuy def ruqya hmm. te ruqya c'est le traitement par le Coran uniquement pour expulser tout ce qui est démon mais aussi pour traiter les maladies dont ils sont responsables. Et, et purifier donc les lieux qu'ils occupent, c'est-à-dire les démons. ruqya mu ngi noonu alxuraan la boo dégloo benn bis ma ni la képp ku nga xamante ni da ngay faj jinne wala ngay faj rab wala ngay faj nitu guddi nga nekk ci wala nga nekk ci ay def-def wala cat cinq yooyu mm. boo ñëwee da ngay taxaw sama ginnaaw mm. loolu nekkul bàkku dama la ko waxoon fii mm. alxuraan ba moo tax man amu benn njëriñ mais képp kuy faj loolu boo ñëwee sama ginnaaw ngay taxaw fële si si si ginnaaw ngay taxaw boo nekkee nag charlatan moom doo bokk ci géew bi sax dama la yóbbu ba ca ginnaaw ginnaaw ma bàyyi la foofu <laughs> waaw loolu nag waxin la c'est-à-dire que boo gisee ñii da leen di permettre au moins ñu xam nit ñi xam fu ñu teg seen tànk ak fu ñu teg seen seen seen tànk mm. sëñ Cheikh maa ngi kon di santaat yàlla mm. subhanahu wa taala mm, mi nga xamante ni may nañu kàttanal ñi ñu toogaat fii defaat beneen numéro yal nañu yàlla yàgg may ñu de ñu koy def yu bare bare te mu ànd ak njariñ comme ni ñu koy mm. waxee mm. nit ñi di si gis seen njariñ ñu di leen di ñaanal yàlla di nangu ñaan mm. parce que euh, wa ma ramayta iz ramayta walakin allah wax naa ko fi lu bare aaya boobu bokk na ci lu may rendee jinne bokk na si aay yu may rendee jinne di leen rey fu may terminer mooy que ni wa ma tadri nafsum maza maza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut yàlla nee na ci surtout Luqmaan boo dem ba ci suuf bakken xamul ci ban suuf lay rotee bakken xamul ci ban heure lay rotee kon lu ñu mën di def rek ñu bàyyi xel yàlla parce yàlla moo fi nekk nekk bu nga xamante ne amul fu mu tàmbalee war fi des des bu nga xamante ne amul fu mu yem te moo ñu moo ñu moo ñu bind moo ñu méng suñu mbir nañu jàmm yàlla waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm nga soxna yi. Hmm. jaajëf waaw waaw soxna yi soxna yi dina dina dina ko wax maa ngi gërëm samay soxna bu baax a baax a baax. Hmm. di gërëm waa Tektal TV di gërëm samay mag samay rak sama sama sama waa kër. Euh, Galaye Cheikh ñoom Modou ñoom Wele ñoom ñëpp maa leen di maa di gërëm aada tout le monde. yàlla nañu yàlla defal tawfiq ci barkeen bi alayhi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kooku mooy Aliou Dieye hmm. numéro bi di 77 263 88 48 77 263 88 48 beneen bi 76 171 74 77 76 171 74 77 numéro Aliou Dieye yëpp am na WhatsApp nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla ma xam tëlewul dara te mën na lépp. Euh, équipe technique bi ñu àndaloon balaa boobu nag gërëm nañ Ousseynou Ly Allemagne Dieynaba Diamaté Allemagne Mami d'enfant France Espagne Sayer Fall Fat Diop Amérique euh, ñëpp jiite gërëm na ñëpp daal baax a baax kenn jëndalaguñu ñu ay matériels yu ñu gis kenn jëndalaguñu oto oto yi mas a am sëñ Assane Fall ma mas a may 4x4 ab ah, Abdoulaye Diop xaas may ma oto beneen oto bi ma yor maa ko jëndal sama bopp képp kun envoyé oto bi ne diw nii maa ko jëndali matériel ak yooyu amul waaw Tektal TV daal kenn dërëm kenn dugg ci nag ñoo ngi xaar nag ak ba France 24 nag yu mel noonu ku yéene kéel daal mais daal damay bañ euh, am na yu sew yu am yoo xam ne que mu mel ne dañoo defar lii. da fekk euh, loolu amul daal ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci ma euh, Massamba Diop bu Derkele nekk ci Petit Sow euh, Thiès Mbour maire Khady Ndiaye yaayam nekk ci soxna May Diop ci réalisation bi sëñ Fallou gërëm nañ ko bu baax a baax ak Zeynab ak maam Diakhat ak Bour nijaay Seexu Diakhaté xewal dikk loraa loraange dëkk sëñ Aliou Dieye jaajëf xewal dikk loraange dikk jërëjëf incha allah rabbi